moo tax bu ma ñëwee ba dem lii ñu leen ko fi mën a wax bëriwul. ngeen jël loolu. professeur man professeur laa koy sax ndax xam-xam bee bëri. Pa Pa xaama ñëw parce que parenthèse la rek après ñu continuer waat débat bi. parce que loolu dafa soxal tamit euh, jigéen ñi ñu ñëpp. papa da nga wax tout à l'heure waxu faux ongle ak ak greffage mën nañ ci jàpp ne que euh, dara dara graawu ci. lan ci. Hmm? ni ñu koy tegee ak faux ongle yeeg yooyu. yokku taar la rek amaana. ah loolu dañ ci mën a wax de parce que lépp loo xam ne mënoon na yàlla araamal na ko place sàngam hmm. ah te eh, nit bëgg ko ci ci soxnaam ah kooku day ko ko bonal yaa ngi bëgg a bon yow ci sa bopp boppi neen boppi neen ci jigéen nag boppi neen ci jigéen nag ñàkk muuru yow da nga sous-entendre muuru bi dafa war waaw waaw xëy na yaa ko ah, ma sous-entendre ko parce que loolu moom dama ko loolu moom dama ko gis alxuraan moo tax non ah. Ah. loolu gisoo ko ci alxuraan obligation hmm? jigéen muuru professeur loolu la bëgg laajte jigéen muuru kon du obligation ah papa su fekkee ne yow xanaa xamu ne yow lii kawar gi ñuy seen hmm. bu dee da nga koo tegoo xanaa xamu ne muuraay la ah loolu sa interprétation rek. déedéet déedéet déedéet ah, ah, ah. man du ma man damay wax le texte. ah na texte ñëw. c'est que kawar mhm. mooy li génnee ci biir yaram wi mhm. waaw lii li nga xam ne moom moo jógee ci e, ci der bi génn boobu mooy kawar li nga teg ak lu mu mën a doon mhm. ak lu mu mën a doon muuraay la maanaam muur na sa bopp même bu nekkee karaw nit la dafa amoon question euh, bi nga paree rek puy dafa am question xaaral ma jël puy puy vas waaw man dafa am leen rek loo xam ne moo ma xaw a jaaxal ci wax ji ma xaw a rek lu paradoxal parce que léegi tantôt joxe na fi exemple que boo demee Léona Niassène maanaam ñoom am na ñoom ñu ngi julli dañ dem ba ci gouverneur dem si préfet waxtaan ak ñoom ñu jox leen ay charte na ne buñ ko respecté rek mën nañ leen bàyyi ñoom ñu continuer seen i julli ñu wax léegi ne tantôt aussi boo demee Touba am na jumaa yu julli Saint-Louis pareil léegi le problème mooy kon Dakar lañ jàpp ne kon autorisation bi dakaar la manqué pourquoi ñu segg yenn dëkk nangul leen ne ñoom am nañ sañ-sañ dem ba ci Medina Gunaas aussi dooli ko ci ah Medina Gunaas dooli ñu ngi julli waaw waaw exemple laa joxe rek Yoff ñu ngi julli waaw moom laa wax donc pourquoi yenn jàkka yi yenn jumaa yi moo benn spécificité bu ci am bañ ne ñoom waruñu am benn obligation wala waruñoo julli ndax ndax mbas bi la ndax mbooloo la ñuy bañ te pourtant ñu ñu lim fii ñëpp léegi fi mu nekk nii koo ci dégg ñu nga julli mbooloo lay def li mu wax benn côté ci wàllu naafila dama ciy ànd ndax ñun bi ñu gën a nekk xale sunu kër yi bu óoru naa fi la jotee suñu pàpp dañuy taxaw laal basan wam ñu jël suñu basan laal ko ñun ñëpp suñu yaay topp suñuy ginnaaw ñu jàpp moom mu jiite naa fi léegi ñu naa fi la kon benn côté dañuy jàpp ne naa fi li nga ci wax ku ne mën nga ko def sa biir kër comme aussi dañuy faral di wax naan ak julli juma waaw falaa jëm dañuy faral di wax tamit ne nit ku nekk sa néegu bopp mooy sab juma hmm. loolu moom kenn wertu ko ndax néeg ba ngay jullee sa néeg ba ngay yeewoo boo xëyee fa ngay jullee fajar bu dee jumaa yi demoo jumaa ja mm. jàkka ja fa ngay jullee deux bu dee demoo jàkk ja ñun ñëpp daf ñuy daal ku ci nekk da ngay yeewu jël sa basaanal ko sa biir néeg uh-huh. julli fa kon néeg ba daanaka da ngay jàpp ni jumaa la mais li ma gën a amal yitte rek mooy pourquoi yenn secteurs yi nga xam ne ñoom lañu lim yenn dëkk yi dëkku baayam dëkku maamam ay Medina Gounass et cetera ñu nangul ko ñooñu mënuñu ko nangul waa ndakaar man loolu rek laa bëggoon xam ñu bàyyi ko mu tontu da ah, ah, nga bàyyi non c'est vrai que loolu du question diine c'est-à-dire que lii loo xam ne gu buur boo ko ko ñaanee mu may la ko demal nga ñaan ko ko mu xam ne yow nekkuloo di violer la loi mais da nga pour waaw da nga non demande pour nga conformer wu yow léegi yaa ngi nii bugaan am na licence mën na diffuser ñëpp di ko seetaan ba ma ñëw léegi def nekk à côté commencé daal di diffuser def lii dañu ñëw tas ko loolu rek la dafa ñaan ndigal ñu may ko rek ki ñaanul ndigal ñaanul ndigal tax ñaanul ndigal na ñeneen ñi ñaan ndigal ba xam. Mm. kon daal ñun waa war nañoo mën a ñaan ndigal. waaw rek dama ne man daal yaakaar naa ne. jàkka wala jumaa ju demoon. jël seen i kii ànd ak seen i chef de quartier dem ca seen maire wala seen euh, lañ bind daal wane ne ñoom. de la disposition bëgg nañu respecter les normes. danañ takk masque danañ sorewantoo danañ li ñuy wax les kii les mesures barrières bu ñu ko defee ñu defal leen ko. waaw d'accord xam nga dama dégg Ahmed Khalifa Niass mu lancé un appel au chef de l'État te après xam naa di nga si ñëw je pense que di nga dugg ci répartition yi ñu defal presse bi. Mm-hmm. effectivement di ci dugg après ah. Mm-hmm. dinañ ci donc koy arrêté. Mm-hmm. donc moom mu wax ne je lance un appel. ceeb beeg diwlin yii ak yi nga xam dañ koy jël ñi nga xamante ni dëkkuñu si dëkk bi damay ñaan président ne ko arrêté moom moo ko wax ñëpp dégg am na lu ma ca teg sax te ko. waaw beneen bi am na benn libaane bu tudd Sphère lii mu lay wax def ko léegi ci Google ba la ñoo pare. Sphère benn libaane la ni dañ koo jox ceebu Yemen jox ko xaalis ba. mu daw ak moom liban kii ko fi fi ne ngi bëgg a jot xaalis bunuñ koo jot te amatuñ ceeb. waaw donc loolu dafay wane ne par exemple ki nga xamante ne jox nañ ko. ceeb faire la wax def ko ci sa Google nga xool. waaw déjà donc ki nga xamante dañ ko jox ceeb bi ñu ngi soxla cent mille tonnes te xam naa ne leer na ma ne amaguñu loolu pour jox ko askan bi mais taxaw nga au moins en tant que patriote lancer un appel au chef de l'État que doomu réew mi nañ leen jox marché bi nga ne ko tamit. si weeru koor lañ jëm Ahmed xalifa xam nga weeru koor weeru nu mu sellee lu tax nga demande président de la république à ce que couvre-feu bi mu def vingt heures na ko yóbbu ba vingt deux heures parce que nit ñi am possibilité am lu ñu yóbbu seen kër dund am na lu tax. jour bi nga ko waxee ci la ko Tunisie def dañuy lever de vingt heures à vingt deux heures. waaw waaw donc donc dama la dama dama wax loolu maintenant ci loolu laa bëgg a taxaw. puy julli kër ga. Tisbaar takkusaan suba bokkul ak jumaa jumaa puy di nga am jàkk mu nekk sa kër sa koñ te du jumaa jumaa jot nga bàyyi jàkk jooju dem jumaa effectivement mooy farata jumaa man li ma jàpp bu mu wóor mooy lu nekk ci alxuraan obligation la situation exceptionnelle mesure exceptionnelle waaw amul exceptionnel non non non alxuraan exceptionnel xam nga xam nga da exceptionnel xam nga da nga xamee ne amul exceptionnel amul exceptionnel parce que yow même boo nekkee sukuraat nga nekk sukuraat di nga julli kon nga xam ne amul exceptionnel. leer na uh-huh. donc loolu moo lay wan ne amul amul exceptionnel. xam nga bu ah? sukuraat doon julli kenn du dee. waaw waaw ne waaw ma loolu dafay war a dee mën ma ne la ma ne la waaw moo tax ma ne la amul exceptionnel moo tax juma.